forage yu Bambey Séréer état bi moo ko bëgg a nangu jox ko waa ofoor Ofor itam ne nar koo jox Aquatec Aquatec ay canadien lañu ay équipe réew ñoom xaalis bi fi nekk la bëgg a jël eh, eh, yokke ko doole ñeneen. anduñu ci loolu loolu duñ ko nangu muk bu nañu ëpp doole nag waaye bu ñu tëddee di jooy sax dinañu bañ amul lu ñu mën a def mbaa ñu wax ko. ba suñu bañ bii ñàkk doon bañ dañuy bañ ba fu ñu fu ñu mën a euh, fu dool suñu doole yem. li ñu bëgg mooy nañ ñu bàyyi ak forage bi ñu ñu ñu continuer gestion bi ñu doon gérer ñi ko ñi ñu ko dénkoon ñu ngi koy def gestion bu baax macha allah lu ci nekk dañu dem ci forage yi am problème forage suñu forage bi amul problème fi problème nekkul duñ fa dugal ay problème dañ ñuy jaay doole doole lañ ñuy jaay ah doole nag euh, nguur a ko moom moo ñu ëpp doole de waaye nun noo ko jox dooleem waaw ndax bañuñu ci dara nag mu nekk bañuñu ci dara dara dara ndax euh, dañoo maroon ba dem di cotiser am ONG bu ñu ñëw dimbali am ay doomu doomu euh, dëkk bi euh, yu seen loxo set wicc ñu teg ko ci seeni loxo ñu di ko gérer ba ñu ci am nii ñu am ko ci. nekk xam na sa sa sa moroom dañuy ñii ay politiciens lañu. Euh, am na lu ñu soxla ci ñun ñun itam ay suñuy carte la ñu am bu duñu fal ku ñuy duma ku ñuy duma duñu ko fal mukk duñ ko mos a fal ku ñuy ku ñuy duma duñ ko mos a fal loolu moom na leer nañ